ramadaanangi weru yaru mande ramadaanangi mooy gan gi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen mboolee mbokk yi nga xam ne yéenay ak ñun ci télé islam tv seen mbokk ibrahim xalilu al ibnu mooy àndaat ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee kaa ñu xam borom bi te sopp ko yàlla nañu yàlla may xam ko sopp ko ko ko te may ñu moom borom bi tabaaraka wa taala mooy alxakam alxakam mooy lan mooy attekat bi mooy ki nga xam ne nag atte moo féete kaw atte ku man di ki nga xam ne moom lam atte mooy liy dëgg moom lim atte mooy liy dëgg de ku wuuteeg atteem sab atte doonatul dëgg atte sax mënta doon dëgg doonu maandu lu dul bu dee ne dafa sukkandiku ci atteb yàlla kon borom bi dane inil xukmu illa lillah atte moom yàllaa ako moom kon yàlla moo war a atte léegi kon doomu aadama yi lu ñu war a doon ñuy doxal atte boobu ci kaw suuf moo tax ab yonent musu fee ñëw ne moom mooy atte atte boppam mbir yi nga indil ko ko rek mu naan lii moom a ci neex wala lii laa ci dogal wala benn yonent sañu ko fi yonent yi ma di ñëw yëpp lu ñuy def mooy lan bu dara amee borom bi tabaraka wa taala wax yu leen ñu wax ca lañ ca war a wax atte ca lañ ca war a atte sëñu ñu tegal seen bopp seeni atte ku xam yonent bu bu bu loolu kenn sëñ ko benn yonent ñemewu ko mbir yi danga nga ci atte atteb yàlla moo tax borom bi loolu leen digal wa an xukkum baynahum bima anzala allah atteel si diggante ci li yàlla wàcce kon loolu la ñu yàlla jox autori autorisation ñu def ko di jaam yi jaami yàlla lañu waa yàlla dana bindi jaamam ba pare wàcc leen noonu sans muy atte bàyyi leen rek ñoom ñooy tegal seeni bopp atte ñooy def doxal lu leen bëgg a doxal yàlla génnee ci loxoom déedéet yàlla bi mu bindee jaamam ni mu leen fi defalee wërsëg defal leen fi yiñ fi soxla yépp noonu la leen fi defale nag lépp loo xam ne a soxla woon nañ ko ci mbir yi àtte noonu la leen ko fi defale yooyu yépp mu yabal ay yonent yoo xam ne ñoo ko jàngale kon mbir mu ne buñ bëggee xam lu ca borom bi tabaaraka wa taala àtte buñ delloo ci alxuraan sunna dañ ko xam borom xam-xam yi loolu lañuy jariñ moo tax heure boo xamee ne ni diine nit ñaa ngi koy jàng ñuy ami borom xam-xam yu am doole siin lépp dañuy gis ne buñ ko delloo ci boroom xam-xam yooyu ñu wax leen lan la ca yàlla wax waaye bu fekkee ne nag dañoo néewal doole diine jàngatuñ ko sori ko dañuy mujj ñeneen i nit ñooy ñëw ñoo xam ne ñoom seen yoon nekkul ci mbirum diine dañ lay wax sax ne la diine moom bokkul ci suñu mbir complètement bokkul ci li ñuy doxale it ñun ba pare yow atte la yow ñooñu ca lañ lay atte ndax cala yàlla wax ci lañ lay atté wala ñom ci seeni gëm-gëm ak seeni gisine ak seeni doxalin ku ci ne la nga la nga gëm ci ngay atté la ngay top ci ngay atté té ñom nee nañ yàlla atteetul wuñ ko ci seeni mbir wuñ ko ci seeni source seeni way kon kay atté yalla lañuy sempi da fay tek seeni atté yi bopp nak nag àtte moy mooy yi mandu yi moy atté yu rafet yi loolu borom bi ne afa xukman jaahiliyati yabxuun wa man axsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun ndax ñoom atteb ceddo ya atteb kéefër ga yooyu la ñuy jël bëgg ko ba di bàyyi atteb yàlla yàlla ne leen wa man axsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun ana kan moo gën a rafet yàlla ab atte mu waxaa ne afa xayra allahi abtaxi xakaman wa huwa alladi anzala ilaykum alkitaba mufassala ndax damay jël keneen ku dul yàlla ma koy def moom mu may atte déedéet yàlla rek mooy doon ki ma xam ki nga xam ne moom lay gërëm mu doon sam ki may atte te yàlla nee na moom moom mooy ki leen wàcceel téere bi mu doon lu ñu faram fàcce nga xam ne lii leen di atte yëpp mu ngi ci téere boobu bu nit ñi amee borom xam-xam dañuy xam atte yëpp lu ci ne lu ci ne ay atte ma ngi ci kon buñ gënee xam yàlla dañuy daal di xam ñun fan lañu war a dellu kan mooy ki ñuy àtte kooku kon benn wax rek lay doon mu yàlla du keneen léegi kon kan lañuy nangu mu toog di àtte mooy koo xam ne dafa fob àtte yàlla boobu di ko doxal ci suñ kaw waaye du nit ko xam ne moom ay àtte boppam la yor di ñëw di ñu ko tegal déedéet ndax loolu bu ñu ko defee dañuy wuuteeg yàlla dañuy wuuteeg yàlla atte yàlla la ñuy nasaxal teg suñu atte bopp waaye bu fekkee ne gëm nañ na yàlla mooy alxakam mooy atte yàlla la ñuy doxal léegi nag foofu li fi am masalan ku ci ci sa bopp ku la yilif sa bopp kon atte yi yow yaa ciy doxal léegi yow atte kan ngay doxal ci sa bopp sa yëfi bopp atte kan nga ciy doxal suñu mbir yépp yàlla da ce atte lam ciy atte ba pare léegi ndax dangay ngay jël atte yàlla yi doxal ko wala da nga naan ko fi kupp jël yow sa attey ba neex ah loolu la ñu yàlla aaye woon de wa an ixkum baynahum bi ma anzala allah wala tattabi ahwaahum atteel seen diggante ci li yàlla wàccee te bul topp seeni bànneex nag kon yow tàmbaleel ci sa bopp yan atte ngay atte ci sa bopp bala ñu yóotu yi gën a rëy di yootu réew ma di yootu dëkk ba bëgg ko atte ci atte bi yàlla nañ njëkk a atte suñu bopp ci yàlla ba pare ci atte bi yàlla ba pare yàlla atte na waxtu julli yi nañ ko julli julli juróom yi ndax yaa ngi julli boo julliwul atte woo atte bi yàlla ci sa bopp yàlla yim xaraamal ci yow ndax yaa ngi koy bay bu dee ne yaa ngi koy def yàlla ne la bul def nga def yow atta bi yalla ci sa bop yalla ne la bul jël guer nga jël guer bul wor ngay wor bul sacc ngay sacc ah ana bi yalla ci sa bop yow jigen gi yalla atté na ci sa col ni nga wara solo murul nga ne duma nas nas col gi doon col gu jot te yaatu ba nga xamne du tafu ci yaram bi te boy genn bu mu doon luy feñal sa tar er boy genn ay jàmbur nar la gis colok l'islam gi nang ko sol nga ne dedit man maa ngi sol na ma neexe ndax àtte bi yalla nga àtte ci sa bop kon dañuy atté wo li yalla atté nekul ni rek moy ñu daal dina accu rewuma ma luwaa ya fay dox léegi luwaay lislaam la loola ci la ci la ca war a jiitu sax ci la bokk waaye yow tàmbalee ci sa bopp ndax boo ci tàmbaliwul sa bopp buñ ko tegoon ci réew mi it kon yow day dal sa kaw kon waaye yaa ciy tàmbalee sa bopp te yow tàmbalee gi nga ciy tàmbalee sa bopp moom loolu moom du looy xaar ndax réew mi pour ñu mën ko attewoo day fekk ñi attewoo lislaam ci seen bopp bari ki def ko ke def ko ke def ko ke def ko ñoña tassé doon ñu ëpp ci réew ma ah ñu ëpp ci réew ma kay xana lañ bëgg mo fay am waaye bu fekkee ne nit ñi wu ñu islam seen bop même buñ ko bëggona tek ci réew ma du mëna dem parce que nit mun mi atti wu ti gëm ko mënut dem du dem kon fofu la liggé bi nek moy fexé ba ñun suñ bopp ñuy wo l'islam ñun ci suñu bop ba paré buñ ci yalla defalé tawfiq acho suñu njabot ño leen lifti, ci kon kër gi kër gi kërug l'islam la wara a doon atte yàllaa fi wara fe dox lepp lu yalla ayé da fay wara da fay wara juk ci kër gi yalla diglé da fay wara am kër gi état islam la wara a doon mom l'islam mo fi wara dox régalé l'islam mo fi dox ñom réew mu ñoo xam luñu wara doxal dé wayé kër gi mom mom li yalla bëgg rek mo fi wara am ci atte bi yalla lañu wara dox bu bu loolu amé manam yow nit ki yow légui ci atte bi yalla ngay dox sa kër ci àttab yàlla lay dox ko defee nag kër yu mel noonu bu ñu baree bu yàgg réew mi it ci àttab yàlla lay dox noonu rek la kon yàlla mooy alxakam kon foofu la ñuy yemandiku tey incha allah buñ ñëwaatee daal di euh, euh, continuer subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk